salaamaaleykum di commencer d'abord nuyu tous les journalistes yi nga xamante ne ñoom ñoo teew fi tey ak techniciens yi nga xamante ne ñoom ñoo accompagner journalistes yi. du nuyu aussi l' ensemble de la plateforme bi nga xamante ne ñoo nekk dans le front de la défense de la démocratie mën naa wax ne li ma waroon a wax yëpp ñi ma précédé wax nañ ko mais cela na m' empêche pas que comme que on est dans un combat démocratique ma dugal ci aussi sama xel ak sama xalaat bu ñu waxee front il y a d' abord idée de refus comme loo xam ne moom la ñuy bañ li ñuy bañ mooy lan li ñuy bañ mooy ku violer sunu constitution te rendez bi nga xam moo gën a am solo dans une démocratie mooy c'est le rendez du peuple et aussi ñi nga xamante ne ñooy laaj réew mi loolu nag su fekkente ne dañ ko def ci biir constitution tëgg ko fixé ko benn nit taxaw daal ne loolu du am je crois que en ce moment kooku il veut dafa bëgg a jàkkaarloo ak peuple bi nga xam ne ñoom ñoo ko joxoon ay pouvoir ba mu mën fi toog 12 lu mel noonu nag combat la boo xam ne ça concerne tout le monde ce n'est pas un problème de chroniqueur c'est pas un problème de de de de journaliste c'est pas un problème de politicien mais ça concerne l'ensemble des Sénégalais le 23 juin bi mu amee tout le peuple s'est mobilisé Ablaye Wade a reculé tey aussi je crois que le peuple se mobilise mais ñun aussi dañu jàpp ne dafa am loo xam ni dañ ko cee war a bay ba mu mat sëkk loolu moo tax ñu teg front bi pour mën a aussi participer au combat démocratique fekk ci nag ñoo xam déjà ñoom sax ñu ngoon ci terrain bi mooy ñoom gi Babacar et autres il est vrai que ñun à travers nos micros et nos plumes toujours aussi ñu ngi xeex pour vraiment la promotion de la démocratie mais tey dafa toll foo xamante ni il faut que ñu dem ci beneen seuil ci beneen étape état boobu mooy lan maintenant fësal nag suñu bopp réellement pour wax ne on est contre le projet même du président Macky Sall parce que aussi Macky Sall la mu doon bañ démb mënu ko mënu ko nangu tey c'est pas possible Cheikh Bara l'a évoqué tout à l'heure en 2012 bi ñu waxee ay waxu report il s'est farouchement opposé à cette idée là donc du moom la mu doon bañ démb bëgg ko nangu tey kooku le peuple farouchement dinañ taxaw aussi combattre ko gi na sa xel dal ci éventuellement ñiy menacer et cetera loolu du ci ñàkk du ci ñàkk man de tout temps man depuis mille neuf deux mille ba tey jii ñu ngi may menacé ñu ngi may traqué loolu moom d'ailleurs j'ai payé de ma liberté j'ai fait un mois de prison mais loolu loolu loolu du lu je crois que démocratie moom boo ci nekkee combat yenn combat yi soo ko engagé waroo ci bañ sax sa bakkan sa bakkan des ci parce que loolu c'est un combat noble et parce que c'est un combat démocratique c'est pour le peuple donc tey mu nekk loo xamante ni l'ensemble des Sénégalais dañ leen di woo pour ngeen mobiliser wu parce que il s'agit du Sénégal du destin du Sénégal parce que bu fekkee ne dañu bëgg a bàyyi ndit violer constitution bi parce que qui peut le moins peut le plus ku la yokkal benn fan bu la neexee demee nga ne noonu léegi je encore remodifier la constitution ba pare yokkat encore donc am na loo xamante ni en démocratie c'est inacceptable inacceptable on ne peut pas créer sa propre crise ba pare bëgg ko jël teg ko ci kaw nit ñi pour en prof pour profiter ci ne da ngay yokk aussi sa mandat présidentiel ce qui s'est passé à l'Assemblée Et le principal problème aujourd'hui de ce pays, c'est son Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 1962, le premier coup d'État de c'était les députés à l'Assemblée nationale. Li xewaat fii encore aujourd'hui, ce les députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Assemblée nationale ñun suñu Assemblée nationale dafa nekk benn genre tard dans notre démocratie parce que président yi li ñu bëgg a avaliser yëpp njombe yi ñu bëgg a avaliser yëpp il passe bunt ñu mën fa mais ñoom ñi nekk assemblée nationale que peuple bi ñoo leen fa teg président bi aussi il faut qu'il sache que peuple bi moo ko fa teg donc dafa am loo xamante ni tey su fekkente ne moom daf ko bëgg a def parce que simplement am na lu muy craindre ou bien ci bakkan ci euh, en tout cas ci bëgg-bëggam la ko bëgg defee loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg et c'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui nous sommes mobilisés pour nous mettre en face de tout personne qui veut violer aujourd'hui la démocratie ces histoires de dialogue ñuy wax yooyu ñoo xam qu'il dialogue man jàpp naa ne sax quelqu'un qui ne fait plus partie du jeu yow je crois que mënatoo arbitrer un dialogue donc bu ñu wax wax dialogue ñun ça nous c'est-à-dire ça nous importe peu suñu combat aujourd'hui notre combat c'est faire de sorte que les élections l'élection se passe à date due et aussi que à partir du 2 que le président puisse faire sa passation de service ñu ñaanal ko mu dem ki ko war a remplacer remplacer ko c'est-à-dire passer ce délai il met maintenant Sénégal dans une véritable et c'est ça qu'il faudra éviter parce que crise moom su amee kenn du ci mucc kenn du ci mucc ça il faut qu'il le sache crise bu amee kenn du ci mucc yi ñuy wax fii yëpp pour l'instant c'est de l'apparence rek la vrai crise c'est le jour où il doit quitter ce pouvoir a qu'il et qu'il ne le quitte pas te je crois que moom en ah, s'il est en tout cas su fekkee ne am na lu ko dese ci bëgg réew mi il ne doit pas nous pousser quand même à certaines extrémités parce que nag réew mi moom jaral na ñun lu jaral nañu lu ne sunu bakkan jaral nañu ko li De Gaulle doon wax naan la révolution n'est pas un dîner de gala c'est-à-dire que révolution moom boo ci dem bul ragal nga dee man loolu mooy sama principe bu ci ragal a dee mën nga fekkee fruit yi mën nga ko bañ a fekkee mais l'essentiel c'est que aussi fruit yi na say doom ak say sët bu ñu ñëwee qu'il puisse un jour tout simplement mais au moins ton nom restera dans l'histoire parce que tu auras participé à un combat démocratique qui a livré ses ses, ses résultats loolu rek lañ ci am amuñu leneen donc réew mi jaral nañu lu ne C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous appelons l'ensemble des Sénégalais à venir rejoindre ce combat-là. Il est vrai que déjà il y a eu am na ay regroupement yu am mouvement citoyen yi parti politique yi ñi xeex mais ñun aussi on veut participer à ce combat-là de la façon la plus noble et de la façon aussi la plus démocratique. C'est la raison pour laquelle encore une fois yéen journalistes yi au-delà même des journalistes ñu leen di woo dans ce combat-là. J'aurais par jaajëfal leen vous les acteurs la presse. ba pare massawu ñi nga xamante ne dañu loru ci événement yi amoon passé jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan mais aussi nos consoeurs nos confrères yi nga xam ne ils ont été brutalisés par les forces de défense et de sécurité ñu leen di massawu et je pense bien que aujourd'hui la CAP ou bien le SYNPICS doivent se saisir de cette affaire-là parce que ce qui s'est passé inacceptable et donner une suite judiciaire à tout ce qui s'est passé su fekkee nag loolu amul aussi je que d'autres mouvement dinañ jël loolu en charge parce que aussi c'est inacceptable de laisser chaque fois sur le terrain des opérations des gens qui sont là pour livrer l'information ñu leen di brutaliser leen parce que ñu koy def aussi je crois que ñoo ko tey parce que si on peut laisser un journaliste blanc sur le terrain muy def liggéeyam correctement nga ne yow kii parce que tout simplement parce que loolaa mën a wax parce que der bu ñu yow il faut le brutaliser moi je crois que le métier du journaliste c'est un métier universel amul cloison amul leneen il faut laisser les journalistes faire leur travail correctement loolu man sama principe la ci man et je crois que aujourd'hui su ma ko dee wax xam naa bu baax parce que li tax man j'ai fait la prison je sais que c'est parce que je veux jouir d'une liberté dans mon dans ma profession c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Rebeuss pendant une trentaine parce que ba ma ba ma jógee prison ba léegi ci la ma nekkoon ci laa nekk je suis dans un combat tooñu ma Samba toom tooñu ma dem yéen aussi jàpp leen ne ci li ngeen nekk lu ne mën leen ci fekk lu ne mën leen ci fekk vous avez opté de faire ce métier là c'est un métier à risque amul xaalis amul leneen mais c'est un métier à risque c'est un métier noble donc ma jaajëf jaajëf leen ci loolu di dellusiwaat un peu sur l'objectif vraiment de ce de ce front là il a eu plusieurs mouvements yoo xam fois dañuy constater sur le terrain à un certain moment le combat fléchit et je crois que loolu dafay yàq li nga ardeur bi nga xam ne moom la nit ñi am ñun nag on ne vient pas en deus ex machina comme on dit ou bien en sauveur de qui quoi que ce soit mais tout simplement pour essayer de mobiliser les énergies ba pare faire face à cette forfaiture bi nga xamante ne déjà am na et qu'on veut perpétuer